اللهم صل وسلم على نبيين أتى بالأد والكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين أبا كرسي المنصور خليف شيخ سيد الله Hadj سي Sy لي نيو lay nuyu te di la ziyaar président président Macky Sall mi ñu fi délégation bu am solo ñu ministre Augustin Tin, directeur de cabinet président de la République ministre Sidiki Kaba ministre Moussa Balde, ministre Omar Gay, ministre Youssou Ndour gouverneur Moustapha Ndaw préfet Makan Beng, délégation députée yi lim na président Abdoulaye Makhtar Diop ñi ngi également ak euh, président conseil d'administration de l'ONAS muy président président président conseil d'administration Lonaz muy ministre Abdou Nessal, Sall ci turu président de la république sëriñ bi ñu ngi nuyu sëriñ Pape Malick Sy Aboubacar di nuyu eh, sëñ Maodo si Abdoul Aziz di nuyu mbooleem muqaddam yi ak mbooleem ñi teewal seen réew fii ci Sénégal di nuyu mbooleem kilifay diine yi ak kilifay aada yi ñu ñëw ci xew bii ñu beral nuyoo suñu mbokk yi nga xam ne yi ñu ngi jógee ci Maroc ñëw fi ak délégation bu am solo te at mu nekk ñu am taxawaay bu particulier fii ci gàmmu yi ci Tivaouane sëriñ bi ñu ngi nuyu également ñi nga xam ne ñi ñi ngi jot ci suñu kàddu te yàlla def mënuñu teew ñu nekk fii ci réew mi wala ñu nekk ci bitim réew gannaaw loolu sëriñ bi maa ngi lay ndokkeel ci bés bu tedd bi ci bés bu màgg bi muy bésu màggal ganek àdduna ngën gi mbindeef seydina muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne yàlla moo ko màggal su ma yeboo sax wax ne lii ñu koy defal muy gàmmu sunu boroom moo ko ko njëkk defal ndax boo xoolee suratul ahzab ay juróom fukk ak juróom benn yàlla mi ngi koy wax inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima man yàlla ak samay malaaka dañuy julli di sëlmal ci seyduna muhammad ngir màggal ko kon yéen ñi ngeen xam ne dangeen ma gëm dangeen a gëm yàlla julli leen ci moom tey sëlmal ci moom te di ko màggal ci sóoratul naj mi yàlla tagg na yonentu yàlla muhammad tagg na aw làmmiñam tagg na ab xolam tagg na fa ay bëtam tagg na ab dënnam ci sóoratul xalam aaya ñeent yàlla tagg na ko wa innaka la ala xuluqul azim yow yonent yàlla Muhammad yaa tedd yaa sell yaa ràngoo tedd ngay jikko moom yonent ci boppam dafa daan màggal bésu juddoom ndax dafa daan woor altine bu jot ñu laaj ko luy sabab bi mu ne zaaka yawma wulittu fihi bésu altine laa gane àddina moo tax ma di ko woor ngir màggal ko kon sëriñ bi yàlla nañu yàlla fayal suñu maam Seydi El Hadj Malick moom mi ñu baaxee lii njabootam taxawee ko ci ginnaawam taxawaay bu rafet ba yóbbu ko tey ci dimension bu koy bii Seydi El Hadj Malick Sy ak bëgg yonent yàlla Muhammad dundam yépp ak yaakaaram yépp ci sayidina Muhammad la ko def wax na ci nuniya wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi tanzimi in ijadhu sujuni juddu yonent bi teranga la tedd nga la faju aajo àdduna ak alaaxira xam ngeen ni Maodo li mu def ci diine bari na taxaw na ay daara tabax na ay góor yàlla yu fees dell ak leer mu wasaare leen ci biir réew mi kenn ku nekk mu yebal la ci ab gox nga nekk biddiw buy tàkk di leer di leeral bind na ci xam-xam lu bari jaamukat yàlla bu mag la woon ku dëddu àdduna la woon ku ragal yàlla la woon boroom yitte ju kowe la woon daana wax naan Maodo bu ëllëgee yowmal xiyaam danaa def yitte bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jiitoo ñeenti xalifaam yi dar ko muy Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane ak seydinaa aliw bu ñu teggee seen tànk ma teg sama tànk waaye lii nag li muy bari bari ci li mu def nee na bu ëllëgee bu teewee ci kanamu sunu boroom bu ko yàlla laajee alaaji Malick loo indi jëf ji li muy rëy rëy nee na du ma ju tudd benn wax na ci miimiya sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak màggal ko moom laa indi te moom laa yaakaar Seydi Ababacar Sy Mansour réew mi am nañ ci yow yaakaar ndax ndono li nga toogee sa waajur Seydi Ababacar bi mu doonee Cheikh Seydi bi mu doonee Cheikh Seydi Hadj Malick dafa fees dell ak wilaya ak ngor taxawu réew mi taxaw bu rafet ba xel yépp dal naka noonu sa waajur Seydi Abdou Aziz Sy Dabakh ñeent fukki at zéro faute moom mi nga xam ne moom mi nga xam ne yàlla dafa xar xoli jaam yi yépp dugal ci seen biir mu juboo woon ak jaam yépp tey sëriñ bi marta boobu marta ba boobu nga toogee yàlla def nga mat ko sëkk sëriñ bi gàmm yi yépp day daanañ ci sawar a ñëw waaye ren nag ci la raw bi nga xamee ne bii da jël bis bu am solo nga pare ne ko suñu maam alaaji baaba jong ca Podor ak suñu mam alaaji daawuda dia bu mbëlëxe ci Jolof mam daawuda dia bi muy ñëw ci maam Maodo fekk na mu mokkal alquran, fekk na ko ca Ndar fekk ko ca Njarnde ak fi ci Tiwaawoon bi mu delloo Jolof nek mu xadam mam mawdo tasare na fa tarixa tijaaniya ñu bari jokkoon ci moom deretam joxasoo woon ak deretu maam Maodo malik ndax joxoon nañ ko soxna Umu Si El Hadj Daouda taxawaayam benn la woon njaboot gi mu fi bàyyi continuer liggéey boobu ñu jiital ci lépp sàmm ak doxal kóllëre ak Tiwaawan kon sëriñ bi yàlla nañu la yàlla fayal teraanga bi nga ñu defal sëriñ bi àdduna bi fi mu toll jaxasoo bari na fitna yi bari na te lépp ci askan wi lay dal sëriñ bi li am ci réew yi ñu wër wala bokk yi ñu bokkal sous région bi war nañ cee bàyyi xel fitna bi am ci réew yooyu ñi koy def dañuy mbuuboo lislaam lislaam nag bi mu duggee ci réew mi yàgg na lool te jur nu fi wàllu diine ay royuwaay yu bari lislaam ñëw na fi tarixa fekk ko fi te mag ñi fi nekkoon jàppoon ci bu baax jàpp bu rafet sëriñ bi ne ñépp xam ne jàmm ji ñu dëkkee di mën a dem ak a dikk di liggéey di xew mu ñu nu mu ñu neexee nu mu ñu soobee te yàqul ci sunu diine dara jàmm jooju kenn ku nekk daf ko war a sasoo def boppam ab sàmm kon ñi ngi soññ nit yi diine yi rawatina sëriñ si yéen ñi nga xam ne mbooloo dinañ leen wuyu si ngeen yokk ci kàddu yi lu leen di jox xam-xam ak ay jumtuwaay yuy tax dara du leen këf rawatina nag muy kàddu yu jëm ci ndaw ñi sëriñ si man soo président Macky Sall nee na dayoo bi dëkk bi am ak limu nit ñi koy wuyu rawatina ñi bëgg a dëkk ak yéen ci dëkk bu sel bi tax na li mu tàmbali woon ci dëkk bi dina ko àggale ndeem soob na yàlla mu dellu ci ne état bi dina taxaw ànd ak mairie bi ngir fexe ba dëkkuwaay yi nga xam ne kii yokk na fii ci dëkk bi lu mel ni ndox lu mel ni courant lu mel ni yoon mën na yegg ci ñoom wàllu assainissement bi nga xam ne bii tamit tàmbali na ko ndax Tivaouane daf ko boole woon ci programme yi dix villes yi entreprise bi war naa gën a baral liggéeyam sëriñ bi hôpital bi nga xam ne sa yitte la ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram wax na ma ne ci at mii di ñëw am na programme special ngir yëkkati jumtuwaay yi docteur yi di jëfandikoo yëkkati dayo hôpital bi sëñ Ababacar néga ni daaw réew mi jaxoon na tiitaange amoon na ci ñenn ñi ndax dayoob xëccoo njiitu réew mi la woon fu nu taxawoon doon ñaan jàmm ci réew mi rawatina ci ëttub Maam Maodo Malick bii yow ak njaboot gi ñaan ngeen ci bu baax yàlla nangu lu jafe woon lu jafe amoon fii ci réew mi ñu woote ci jàmm altine nit ñi dem dellu ci seen liggéey président makisal Sall bi ko yàlla tegaatee ci bopp réew mi ci lu kenn werantewul mu jóg woo ñépp ñu pencoo yittey réew mi li ëpp ci kujj gi wuyesu ko ñu am yaakaar sax ne li ci des ak si néew danañ fekk si ndax loolu mooy taaral suñu démocratie mooy taaral suñu nekkin ñaanal ngeen président yàlla tegaat ko ci boppu réew mi ñu ngi sàkkwaat ci yow yaag njabootu maam Seydi Alhaj Malick ngeen ñaanal ba yàlla mottali yéeneem ci réew mi mu continuer ay projet yàlla sàmm réew mi ba sunu gaal gi teer ci tefesu jàmm sëriñ bi nawet bi amoon nañ ci ay xel ñaar waaye fii mu toll nii daanaka jeex na yaakaar tàbbi na ngeen ñaan lépp loo xam ne baykat yi jël nañ ko ci ñu muurloo ko sali ala sajidin xablal wara fa ala bi sabi miati amin rab amin rabbi allahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما أبدا